Buzz TV mbokk yi ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax ci àndin beeg wéetiluko gi saa su ne mbégte ak kontaante lay doon ci ñun ci ñuy àndoo ak yéen ci ay jotaay xam ngeen ne ni ki démb euh, jotaay lamb moom la askan wi gën a li ko waral di combat bi doxoon si diggante Sa Thiès ak euh, ki nga xam ne mooy rëg-rëg rëg-rëg bàyyeekoo fi nga xam ne mooy caaro yi caaro yi ñu gis mobilisation boo xam ni amoon na fi macha allah am na koo xam ni euh, ci mbëru caaro yi dootuñu ko présenté muy Issa Pouye moom la seen bës di am ak jotaay le grand champion Issa damay gërëm bu baax a baax vraiment jotaay bi ak disponibilité bi waaw asalaamaaleykum ginnaaw sant yàlla jur ngeen saa salaam ñi ñaanal ñu gën àdduna ñëpp yal na yàlla xaajana ne ci kose yi mhm. yàlla gën leen ñu tëdd feebar yàlla fagg seen bopp ñu mhm. ñaan si réew mi jàmm di nuyu sama gars yi toog ñëpp maa leen siyaara di leen ay nit ñu baax nan ñu mhm. samay waay samay xarit maa leen siyaar bu baax ñun ñëpp di ñaan si réew mi jàmm di nuyu sama rakk rëkk ka ñaan a jàmm kontaan na moom d'accord Thiaroye gépp kontaan nañu très bien alors balaa ñuy commencer dafa am loo xam ne gis nañu ko démb gis nañu Thiaroye yi am na mobilisation bu ñu defal rëg-rëg boo xam ni néew na lu ñu koy gis ci mbër lan nga ñu mën a wax si mobilisation bi nga xam ne ni defoon ngeen ko waaw parce que moom la rek xam nga nit da nga am ci nit ñi ko hmm. démb taxawaay bi hmm. vraiment hmm. ak diaspora bi kontaan nañu ñëpp waaw fële nit ñi dem ñëpp ñëpp taxawaay daal paa mag ñi maire xale yëpp dañuy eh, mbër yi ku ne li nga war a dox nga ko ba yàlla may ñu ndam sant eh. nañu yàlla nga bokk si si mbër yi nga xam ne vraiment ràññee woon nañu eh, sa taxawaay ci wetu ki nga xam ne mooy rëg-rëg sa relation ak rëg-rëg boo mu ci doon wax tuuti. waaw rëg suñu la. Mm-hmm. jox cër ñu delloo ko ka mm-hmm. parce que alam yaa daa wax ni nit te joxe cër dala koy mm-hmm. moo war a ko waa ñu sonn moo ñu ko moo ñu ko wan jox ñu cër bi moo war a ñu delloo ko quoi. kon si kon amee dem joxe cër rek. ak si rakk yi ak bas boo yëpp ay paap ñooñu Ablaye boo yëpp daal maanaam. ñu joxe cër rek. Mhm. ñu delloo ak Baye Mbaye yaa ngi dégg boo yëpp daal vraiment ñooñu joxe cër moo tax ñu delloo leen cër bi. Sa Thiès la boo xam ne avant ak après yëpp bari na coow avant combat bi aussi euh, lan nga ñu mën a wax ci loo xam ni xëy na ay conseil la wala euh, noonu nga dundee euh, pression bi nga xam ne amoon na ci combat bi. waaw xam nga làmb ju nekk la cay xew. Mhm. làmb ju nekk la cay fii ci ne fi làmb ju ne wax ji bëri na wax ji bëri Sénégal déglu nañ ñi wax ci ji yëpp. Mm-hmm. mais senegal dëkk bu dëkk bu yéeme la quoi. Mm-hmm. parce que man dama gëm ni fekk da ngaa dugg da nga dugg ci côté yëpp mais soo dugg benn camp rek parce que dugg dafa des. que fii dina fi combat Modou Lo Baye Mandione. Mm-hmm. dina fi Tapha Gueye Yékini Tapha Gueye moom laa gis mel ne mbir mu daan ñett ci jël la genn si genn ngoon te maa ci mu gars yi maa ngi taxaw nii si si ring bi nii taxaw nii sa ma te yéen da ngay daan mu jug di dem. ñu ko daanoo ñëwaatal ñu ne fi ba ñu ne dem Ameth Dème Jackson. Hmm. Jackson daa raam soog a daan Ameth Dème daf ko appui soog a daan Ameth Dème tamit bi ne rek danoo bañ ni Ameth Dème dafa Ameth Dème dafa daanu. Hmm. ñu ne fi Pape sama rakk Pape fan yii trois pieds def ñu ko daanu nga. léegi ñun caare ñun wala ñun loo taxawal ñun waa làmb ñun jox jox ñu cër waa caare laay laaj. d'accord Balla Gaye fa may bëre ak moom. Hmm. dafa njëkk a teg aas bi gars yi bañ ñu daanuwul. dafa ngaa mel naa li jël la ñaari jël la ko daan si ngoon léegi la moo tax caare jox jox ñu cër nii amoon na si sa waaw dëgg man la. Mm. la moo tax ñu jox ñu waa caare cër. ñi wax dana dugg ñi wax dana dugg Tapha Gueye fi kay daa dugg moom ba ko Yékini daan jël la si genn ngoon. Mm. daa rawati ne Yékini daa nga am ñetti jël la mais que dugg ngoog na ma ñu ñu gis ñu ko quoi parce que dafa fort xam na lépp. Mm. dafa fort quoi. d'accord waaw loolu kese la. kon da nga jàpp ni ñenn si ñuy contesté di wax ci télé yeeg yooyu maanaam xeex waa caaro yi moo tax ñuy xëy na saltel victoire bi loolu nga bëgg wax waaw ñun caaro ñoo gën a sonn si làmb ñun caaro moom ñun xeex xeex ni xeex ñi suñu dëkk ñu xeex ñi mm. tax ma wax loolu man xam naa man sama kër a xeex miti eh, wala asim ñi ni coow xeex dañ lay tëgg la xeex mbër mi di la xeex man làmb loolu ma loolu ma gën a sonal si làmb man ñun loolu moo sonal si làmb mm. da yéen a mbër yi ne ma tax ma naan ànd mbër sa àgg tey ji nag na sant yàlla sant yàlla promoteur bi waaw. d'accord Reug Reug dafa daa saake jël bu leen nañ. Hmm. jël maalamal la ko daan. d'accord waaw alors boo nee Reug daan na ko problème mu 4 kon bi nga xam ne moom la ñu bari di wax tamit. loolu 3 appuis fekkante ñu dégg waaw fekkante ñu 4 appuis fekkante ñu. yaa ngi dégg 3 appuis la yaa ngi dégg arbitre nekkul arbitre salamit terrain nekkul benn arbitre 4 yaa ngi dégg. Hmm. kon arbitre ji ebb na du xool. Hmm. loolu fekkantewul mais làmb ji na nga ko si yoon xam nga li teg mooy lan ñaata dëgg. ñu ne baa ma ñoon Modou Lo yaa ngi dégg. Mm. gars yi noonu noppi yaa ngi dégg te boobu gën a leer fuuf fuuf yaa ngi dégg ñu ne fii ama dem Jackson yàggul loolu Jackson ka après soog daan ama dem gars bañ yaa ngi dégg. Mm. Tafa Gueye moom noo kaa jël na ñetti jël na nga daan ñetti jël la nga daan mooy mooy mu daan ñetti jël la moom. moom juddoo ba léegi ci genn ngoon te te terewul. ñu mm-hmm. ñu nga daan woo. yaa ngi dégg. Mhm. waaw alors coowal quatre appuis yàgg nga ko yaa ngi koy yaa ngi wax léegi ci ci say wax ni yàgg na ci làmb lan nga jàpp ni jamono ji kon moo war a nekk solution bi ba nga xamee ni xëy na euh, coow lii dootul dootul amati. ci làmb non quatre appuis amatul ñooy perte pour man mu di perte ñu de. Hmm. amatul ñooy perte naka jël si biir nga war a seetaan làmb ba ba ba dayal ma maa baal maa baal ngeen si ñu pare commencé loolu bëri bay raam loolu bëri bay raam te loolu mooy sàrmu làmb. Hmm. làmb da la fay ay millions loolu la kun kun ku toog sa kawam loo may jël. mais léegi moom def trois pieds ñu daanu la ma war a loolu kaaf yi kere si nan def dindi kaaf bi si làmb dañ ko si làmb mu leer nga defee léegi coono jeex yaa ngi dégg mm. waaw mbër war ngaa mën a bëri pour nit ki pour war ngaa mën a benn action foo nga wàcc su ko mën a jël d'accord mais même da benn action ndax day sóoraale kaaf bi trois pieds lay sóoraale d'accord mais sa saa kee dafa ñu kër daanee mm. la ma jël la man jël boobu la ma jël maa la man waaw bu dee ba si kaw dóor suuf la waaw mais recours bi waa euh, Kër Sa euh, déposé nag ñoom di contesté ni xëy na. li am dara mooy carte appui bi nga xam ne am dara. Hmm. da leneen kaw daan na leneen a muñ seet leneen waaw loolu kese la. accord waaw lan nga jàpp ni moo ci responsabilité CNG ñenn ñi ñu ngi naan xëy na VAR war na mën a am léegi ñenn ñi naan problème arbitre la ñenn ñi naan. waaw ah, da yeneen voilà. ñun caare hmm. ñu lan ñu caare amuñu ñu amee problème problème ko appui ñu xeeñ dama la ñu laagul lool maa ngi wala dafa ko àppi dafa daf ko àppi gars yi bañ yi si kii kii amee dem jox son yàgg lool ka àppi la jox son def gars yi bañ leen dafa ko àppi. te teerwul da ngeen daan nangu yooyu. waaw dana nangu ñun kon ñoom dana nangu moo kese la. d'accord waaw. ñenn ñi di wax ni quatre appuis dañ ko fi war a jëlee en tant que lutteur da nga ciy d'accord pour ñu jële fii quatre appuis. moom mosuma d'accord quatre appuis mosuma see d'accord man mosuma kaa nangu si làmb amateur ñooy perte ma la ay mbër war moo yoon. te jii am naa chance nga a bëre bay raam soo ko mën a boo tax ci après mënatu feeñ ci mhm. nga mm. bu yàggee aussi du du du bokk ci li nga xam ne dafay gën a vraiment déstabiliser làmb. problème day yàq làmb li nga la. ok ay def na cas bi trois pieds. Mhm. ñu ne cas làmb ay trois pieds loolu amati ci làmb day leer nañ ki ñibbi nga ñibbaale sa bopp leer waaw mais xoolal handicap bi ci làmb léegi. laa ma ñu am problème waaw. ñu daal kontaan na suñu mbër. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ñaanal suñu mbër yi am combat. Mm-hmm. Euh, Baye Mandione Ameth Deme Bas ñu am combat. Mm-hmm. ak Baye Mbaye ñu lay ñaanal yàlla may leen ndam ñu kontaan leen daal. booy ñun. waaw ñu gën a ñu a ñaanal suñu gànnaaw xaadim. loolu la ñu ñaan yàlla yàlla may nag am na ndam sant nañu yàlla bu baax. d' accord waaw alors xam naa loolu dinaa ci ñëw. mais tamit di nuyu itam suñu suñu suñu maire bi maire Ndiaye. kontaan na si moom loolu jàpp na si combat bu baax mu nit ku baax. jàpp nañ la waaw waaw. d'accord ñëpp lay jàppale wax dëgg ku baax la ñun daal yéen nga am ñun yéen a am Maître Ndiaye. Mhm. waaw. d'accord am na koo xam ni avant combat bi mën nañu wax ni bokk na si ñu jaay combat bi muy euh, Père Khadim Ndiaye moom it gis nga depuis démb ba léegi ñu ngi koy TikTok ñëpp naan da war a lekk xaj ak yu demee noonu. Ah, loolu en tant que koo xam ne xëy na. xam Ndiaye loolu ñaan am na rek dafa daan saa kees. lu bëgg a ñoo ngi koy yàlla xaj ñu ñuy wax ñoo ñu wax loolu ñoo war a xaj ñoom waaw ñoo ñoo ñoo si yéen ñoom ñoo ko war a lekk ñoo ñuy wax. d'accord waaw mais rek. Mm-hmm. am na ndam loolu euh, li ci am comme coow ku mel ni Père Bécaye Mbaye wax na kàddoom wala Moustapha gi loolu tamit beneen coow la boo xam ni ñu bari si waa Caaro yi tamit ñu ngi koy ñu ngi koy ñaawlu ndax gis nga ni tamit ñooñu xëy na du seen xalaat rek lañu wax aussi jaroon na coow di ci am ak ba ñenn ñi di jàpp ni waa Caaro yi aussi dañuy acharné wu ci ñooñu. non damaa la ñun Caaro ñun làmb ji dañuy xeex ñoo sonn ñun waa Thiaré ñun ñu xeex si làmb ñun la ma waroon amuñu promoteur yu mag moo tax promoteur yu mag yëpp dama féete côté bële moo waroon ñu ñuy xeex donc gase naa ah, mais Thiaré amagu la mel si làmb ji ñun si nga yoon làmb ñoo ñoo ko rëcc nii yaa ngi dégg Tapha Gueye moom lu gën trois trois trois trois defetam yooyu ci moo Yékini moom fekk daa dugg moom na woote ne Yékini da daan da daan si Yékini def moo gën a ñaaw mm. trois jël la si gën a ngoon si moom laa gisee mbër mu ko def si mbër mu mag maa ngi làmb ji taxaw ni seetaan billaahi wallaahi d'accord waaw benn mm. Sa Thiès dafa signé moo moo moo moo kii moo ko rëkk. du yoon sax mu taxaw ci di a ñëw signature am loolu du respect du yoon. mooy nag li nga xam ne làmb ñu ko si yoon di wax te te toogul daf dañ dañuy dañuy contrat am. te seen dernier face to face amul. waaw te loolu loolu du yoon làmb ji da nga la gars yi dafa bëri ay naafeq yi ne si làmb ji loolu kese la ah. hmm. dama la affaire yi làmb ji dafa jaaru yoon ba si ñi nekk ci télé yeeg ah ba ci biir rëñ bi dafa bëri yoo xam ay naafeq na nga wax dee man li wax man man moom li wax ragal ma ko man moom xam naa ne ay naafeq ñoo ma xeex ci làmb ba amatuma dara ci làmb man xam naa loolu man mais ñi seen bëri ngemb mm-hmm. te lay man maa man mais naafeq yi nga xam am moyen am doole yàlla doole leen. loolu mooy loolu ko très waaw alors Issa loolu nan la lay def li nga xamee ni ñu bari si caaro ñu ngi koy wax ñu ne Moustapha Guèye dafa ñëw ba seen ci mukaay ni leen jug leen fii wax ay wax yoo xam ne xëy na ñu bari aussi euh, ci waa caaro yi ñu ngi koy ñu ngi koy métti loolu. loolu nga ma ci wax loolu da nga mën la loolu. man dama la ma ko fekke woon dana mel neneen parce que loolu yabaat la Fass ñun ñu waa Fass. Mhm. man mu doon Fass mosuma daan ci àdduna Fass daan ne daan naa ne daan daan ba ci gërëm a doon gërëm a doon daw Fass fu ne fekk ñaare. daan naa leen man Fass mosu ñu maa daan. te gëm naa dinaa bëri bàyyi bëri Fass du ma daan awa Fass du ma daan ci àdduna mosu ñu maa daan ci àdduna. muy Mbapat fekk naa leen Mbapat dafaa gën te gën a laam Mbapat foofu 2006 ma fekk fa. nekk ci mbir ku ka yi gën a trois xaw ma ñu ne kenn jugul ma jël rajo bi ne leen fi jug ma daan la kenn jugul kenn. kon laam yi noonu la tasee Fass xam na ma isaabu baax Fass. Hmm. muy Mbapat ak arène fu leen fekk daan daan naa leen loolu yàlla dogal si mhm. waaw. d' accord Issa nekk fii si diwaanu caaro Thiaroye di ancien lutteur wala lutteur boo xam ne Sénégalais yi dootuñu leen ko présenté moom la seen bés di am ak jotaay lan nga may wax aussi si coow li nga xam ne ni boobaak léegi am na ñenn ñi sax ñu ne waa Guédiawaye ñoom décidé ni dañuy jël si nga xam ne mooy drapeau bi fii si Thiaroye. nañ ñëw ñu ngi leen di xaar nañ ñëw. Hmm. ñëw ku dugg ku dugg doo ko rafetlu de nañ ñëw. pour jël si ci nañ ñëw mais bu CNG décidé pour ngeen delloo drapeau bi. ah d àgguñ ci loolu ma ci wax mm. dama la. Mm. ñun ndam na ndam na am ndam. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ndam leer na am leer nañ. waaw ñu ngi sant yàlla nag. Mm-hmm. di wax suñu mbër rek kontaan si ci moom bu baax. Mm-hmm. la ko war li def nag ba am ndam kontaan si moom. waaw. d'accord Issa li Sénégalais di challenge naan Khadim Ndiaye dañ koy jox xaj mu lekk koog yu demee noonu. yow lan ñoo ñoo ñi koy wax ñoom ñoo ñi koy wax ñoo war a am lekk xaj. ñi koy wax ñoom ñoo war a am lekk xaj ñoom ndax Khadim Ndiaye lam lam ñaan am na ka. arbitre yëkk na loxo rek daan saako jël bu dee bu leer nañ. Mhm. waaw yaa ngi dégg ñoo ñu naan xañ naa lekk xañ ñoo ñoo ko war a lekk ñoom ok c'est ça waaw très bien coow li fa amoon ni ki démb ñu bari gis ni tamit da ngeen da tooñ vraiment ki nga xamee ni mooy Balla Gaye 2 ndax image yi li mu wone mooy kenn koo xam ne si waa Thiaroye la certainement ci ñi jege euh, rëg-rëg la. tooñ Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 yoon mu dugg ci biir ring man man bu gën a dugg ay téye ba. waaw faloog ma yàq ma ji Balla Gaye mooy kan Balla Gaye dafay daan Balla Gaye dafay daan daan rek daan na ma daan naa ka ñaari jël la ko daan mu daan jël la mhm. yaa ngi dégg. Mhm. kon man maa jaay man ñoo jaay dara lu mu saf. maa ngi leen ñun ka daan ma ka daan daan ñun. ma ka daan daan. Mhm. monsieur Arène de Mbappé na na ka daan daan. am na ci benn booy ne Dallou. mu mhm. ko daan si Mbappé ëpp na dix fois man ma ñëw mu ka. ci ay jël da nga daan daan mokk kon ñun jaaxalul. Balla daa war def règlement yi gaa yi war def ni ni ji am dugg ci biir loolu waxoon loolu waxoon sensé dañuy ah, ring bi ku nekk mbër waroo dugg ku nekk mbër waroo faa dugg waaw léegi la ma tax ma ñu bàyyi mu dugg ku am licence war faa dugg te man bu gaaw gi ñu ma ku am licence dafa dugg loolu lay leew ñu daa rafet seen seen kàddu li ñu wax da nga kaa def taw taxaw mais que li ñu wax war a def ñoom moom da war a def kon Balla waru foo dugg waru foo yoon ci règlement waaw du yoon d'accord du yoon hmm. waru foo dugg lu nga wax lu nga wax boo tooñ na nga xamee ni kenn si waa Caaroy def xam ne ñëpp gis nañ waaw demal la moo ko war a def foofu kon moom war faa dugg moom lu mën a xaw moom moom moom Balla Gaye moom nga ko war a ay daan ndax war faa dugg. bi dañuy ku nekk mbër ku am licence doo fa dugg ma ñaata la combat moom ko dugg même démb ñi bañ ñi doo dugg da nga am licence moo tax. war faa dugg du yoon. Hmm. ak lu mën a war faa dugg. rakkam mooy loolu kenn du kenn du ko bañal c'est normal rakkam yoon mais nag amul droit dugg biir ring bi d'accord waaw am ñu naan dañ leen joxoon tegtal ni leen combat bi ñàkk ngeen ko moo taxoon ngeen doon wut yoon bu nekk pour yàq combat bi ñoom fekk si non non loolu amul ñun ñun ñun suñu victoire ba ni ñu bisee na loolu koo xooxu lam moom ñoom ko ñëw gën a yàq lam hmm. ñoom ñoom ñoom aha combat bi soo topp laamu jàmm yaa ngi dégg ñu ne ndam ñaan ñi am nañ ko ndam yàlla jox nañ ko sant nañ yàlla bu baax te ndam ndam fa la neexee si biir géew te jox na ñëkk alhamdulilah d'accord waaw hmm. loolu la quoi. alors Issa nag euh, amateur yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi laajte vraiment position wu Issa Pouye ci li nga xam ne mooy lamb na mën nañ sa takkusaan na mën sa. waaw xam loolu du si ñun lan ngay lan ngay wax ci amateur. xam nga loolu du si ñun dama ne si ñun ñun tey jii. am mm. na mbir li am tey si amoon tey jii mu àggul. am na tey jii dama ne kii Ablaye Niang mi tey mm. mm. jàpp ni moom la yenn mbër yi am te yow ko Issa. am ah, na promoteur yi tëggal ñoo xam ne ñoo xam ne liggéey ah loolu am na ci la bëri ñu fóoru fii yaram yàqu na ñu leen fóoru ñu leen tëgg am na bëri ñu ngi jël di buux rek te fekkee ñoom atay pànnan que mu ci leen pousse ba te ñu leen buux di tëgg d'accord mais mais mais Issa est-ce que tamit euh, da nga def nga effort vraiment pour promoteur yi d'une manière am confiance ci yow. xam nga làmb man xam nga ñaar victoire laa man. waaw ak ñaar dafa làmb si victoire te wér na ñu naan ay ñi nga am yaa ngi dégg. te ñooñu ñooy ay champion am. ñooñu gars yi dañu ay champion am. ah. te ñii am ay onze défaite ñii ay dix ay dix défaite ñii ay neuf défaite. laama yéen ñu am mooy na nga ko wax ku mu am day ku mu am day fi am ndax man toog naa si victoire ñooñu dañu see defee ñooñu tëggal bàyyi ma fi kon léegi léegi lan la kon la kon lan la laa a xam. Mm. mais dafa naka man digg naa si ay victoire ne ci victoire di am ndam. Mm. ñoom ñooñu am i defet ñu ngi tëgg di tëgg di leen fekk si ma fayul di leen buux aywa ku mu am ndey ku mu am ndey am ci làmb mu am ci làmb ji. d'accord da nga gis ni gars yi soxlaatuñu làmb kese mais léegi làmb mafia la xëy na nit ku ne làmb mafia la moom la gañ. ok oh, waaye nanga d'accord alors mais instant bii nii ñu gëj a gis Issa mu bëree loolu aussi ndax amul vraiment lu mu lu mu jot a yàq ci sa carrière ci li nga xam ne ni absenté wu nga ci durant. bien sûr dégg nga man la loolu du si ñun. Hmm. mais sa waay li ngay wax nii pour am koo wax moo tax nga liggéey pour nga liggéey il faut nga ko introsé ñun suñu soxla ñun ah. Hmm. làmb tegoo si yoon dëgg dëgg dëgg heure bi ma fekkee fi ma maa ngi si ànd ragoon mais làmb da nga kaa tegul si yoon ab lëbi la seen biir mhm. yaa ngi dégg mhm. jël mbir yoo xam ne ñu daan na leen man mokk yaa mhm. nga kaa si yoon bu bëggee làmb ji avancé alors mais duñ la gis sax souvent nga xëy na loolu tamit doon na nekk ci li lay gën di dimbali yenn lamb yi bu amee nga dem def show xëy na dem ci ci ci ci ci géew bi wane sa bopp yooyu sax lamb ji daxaw noonu de ah. eh, sa waay lamb léegi laa ma ñu am lu muy xanaa dëgg ma la lu ñu tax waxtaanal la seen biir ñoom. ak li Siteu def démb yëpp doxewul noonu. dégg nga man la. Hmm. Siteu dafa jóge si combat jóge si victoire. ok bokkul. ma ñu léegi. Hmm. waaw ñaata ma def toog gërëm ñu ñaata te ay champion hmm. <laughs> si man rek li may jooy la li may jooy la sama yeneen morom ba di jooy ñaata ma a bàyyi laa ma dem tukki ñaata ma doon tukki te ay champion lañ laa ma ni muy doxee moo moo tax. d'accord te ko si yoon. laa ma si ko yoon. lépp day jaar yoon. d' accord ñàkk teg si yoon moo waral ñu bëri bëri génn làmb dem sa yoon. alors am na koo xam ni moom lañ fi teg wala loo xam ni moom lañ fi teg pour mu doxal yoon muy CNG kon jàpp am na ci responsabilité boo xam ni xëy na ci doxalinu làmb. ñu am nañ ci bi fi nekk. Hmm. nuyu baax sama xarit la sama hmm. père la. ñu nuyu ministre sport yaa ngi dégg. Hmm. yaa xam ne jaxara ak ñu tam ministre sport Matar Ba. sama père sama xarit. yaa ngi dégg. dama la ñu nga làmb ama dem fan yi bëri na fi fan yi ama dem suñu mbër la mm-hmm. moo Jackson Jackson dafa def ka yi mm-hmm. soo kaa daan ba duggee rukkul xam lu wax danoo bañ mm-hmm. te géejawaay dëkk géejawaay kaap yi def kaap yi la def gaa yi bañ ñu ne bàyyi ma ñoon moo loo kaap yi la def gaa yi bañ léegi ñu caay ñu ñu na yab ñu na yab kon laam la nga def si yoon quoi très bien am na ñu bari ci euh, promoteurs yeeg amateurs yi ñu ngi wax ni pourquoi pas kii di Issa Pouye jóg pour laaj ki nga xam ne mooy Ada Fass Ada Ada Fass moom ci may Fass moom damay damay leen man. Mm. Fass ma leen fekk daan leen Fass moom yàlla na ko sama kere bu ñu ma ci daan. Ada Fass am na combat amoo sos am na daan bi Seex wala wala wala ko kii pour nga jël ko. non ñun ñi ma na ma àgg ca. rabi mm. man du ma laaj dañ ñu xool incha allah rabi. d'accord waaw alors am ñu naan Issa ci boppam nga baal ma Issa dafa ragal ba Issa du sax ñeme tudd adversaire bi nga xam ne moom soxla non non man du ma mbër. <laughs> man je sais que yaa man man man ma ragal toog fa man. Euh. c'est que am na fii man man. mais loolu loolu la la wax aussi Issa dégg man la euh. man ñaata mbër laa fi laaj. da a laaj bu mu jógee da ngay sonn noppi man Tapha Tine maa ko daan Yékini Junior maa ko daan ñeent seen revanche mu si ma téye nii léegi am na loo xam da ngay wax yàgg da nga ñàkk a sama nu alaamuñ daal kun bëgg nga bëri di nga bëri mu bëgg nga bëri doo bëri loolu kese la d'accord man nag say mbir jël jël ma lépp ko yëkkati ci làmb ji rek man yàllaa ngi fépp foo làmb rek waaw d'accord en tant que ancien lutteur Baye Mandione am na combat dimanche bii di ñëw yow ndax mën nañu xaar ci lu yàggul dara ñu ne annoncé ni sa combat taxaw na ak benn x sala dinaa am combat léegi soob yàlla ci lu yàggul dara ñu ci wax mais moo ko ma ci wax kan moo jot ko avance moo ko ma ci wax am na sa combat bu ñuy dox jamono ji waaw comme wax dañuy wax yàgg di mbasante loolu lay bañ moom borom kàddu laa lu may wax day leer quoi. d'accord waaw am lu ñu togg soudan ñoree. Mhm. naa la woo nga ñëw ñu añ. incha allah incha allah incha allah di la ñaanal jàmm yi. jërëjëf Issa. yàlla yokkal leen bu baax a baax daanaka yow moom vraiment. dëgg la dëgg la mhm. dëgg la waaw asé ay morom baax nan dëgg la waaw. mais gars tuddul seen tur Issa. borom baax yi nekk ci réew mi foog Sénégal xam leen tamit. maanaam li may libaas libaas Baye Modou. waa ji. Bouna Ndiaye ngoog Baye Modou Bouna Ndiaye Alboury waaw. Ibrahima moom moom ceeb yi neex na ngoog. walaay walaay. merci beaucoup. Ibulaay ngoog. fii nii Itagne dina xaw a rafet ceeb bi kenn du moom sama waa ji. très bien. Alphonse kenn du moom. As Ndiaye. Ablaye Niang. mu ne ah. beneen maam mag bi. yaa ngi dégg goote yaa ngi dégg. d'accord ñii ay borom baax nañu. très bien yaa ngi dégg. moo de ngoog yaa ngi kenn du moom moom moo ngi nii. mooy borom moteur yi. d'accord ñu ne itam sama grand frère temps potam ak baagoog. Hmm. yaa ngi dégg ak ak borom oto yi sa waa ji luyoo la nga oto yi anam sax Pape Ndiaye avion sax luyoo la. ah moom Pape Ndiaye. Pape Ndiaye ay oto avion sax luyoo maa kon ku bëgg a jet privé wala Ndiaye location woo ko mu luyoo la ko. <laughs> très bien di gërëm tamit sama grand frère moom benn kenn la man. Ah. man ma ngaa fay Amara Sène. Hmm. yaa ngi dégg gërëm Babacar gërëm diaspora bi dafa sama nijaay dafa baar ba Tamba. Hmm. ci nañ conseil bi Cobra. Njaga Cheikh vraiment alaaji sama rakk. Mhm. ñu lay ñaanal diaspora bi ñu ne ci kaw yàlla na yàlla jàppale. yaa ngi ñu ne taxawaay bi. yaa ngi dégg. Ah. xam ne làmba làmba làmba ñu ak la cay xew. waaw. Mm. rek tamit ñu ngi koy ñaanal ndam yàlla na ko jik. très bien waaw ñu ngi ñu kontaan si moom. incha allah. a def na ko. très ko fàtte sa combat ak bébé Diène ndax di ci d' accord wala loo ciy xalaat. boobu lu ma Assane Ndiaye waroon na ma xam ne lu ma fay arrangé wu ma. ah Assane Ndiaye li ma fay dafa yëy guro mu jeex est-ce que da nga ragal tamit parce que. gars yi loolu lu ma fay dama doon guro mu jeex. gars yi dinañ da daw bébé moo tax la lu ma fay dafa yëy guro mu jeex guro mu jeex. kese maanaam lu ma ko bëre. ok te pourtant ah, combat bu ko def aussi ne serait-ce que ñu kontaan dafa doo am dara laa ko def. sa maanaam liggéey pour nit ñi kontaan bi dama am dara sa bëgg dara lan damay laaj pour lan. c'est clair liggéey ngay feeku. c'est clair mais ñi nga kontaan daan nit ñi kontaan a yow après nga toog zoro. no man mbiru mag laa ko Bébé la rasu làmba Bébé Diène bu gëbël nañu bëre sama boy yi am na ñu mën a bëre nañu bëre jël pap très bien yaa ngi dégg ñu mën a bëre sama équipe dafa bëri mbiru mag laa jërëjëf ça yaa ngi mm-hmm. waaw très bien quoi doon am mbégte ci am ak yow jotaay di la gërëmaat bu baax a baax ak mafia bi nga xamee ne vraiment aussi ñoom it rafet lañ a baax vraiment dalal hmm. ñoom sa maa ngi fi di nuyu itam sama waa ji Papa Niang hmm. Baye Abdou hmm. Cheikh Baye Laye yaa ngi dégg ak ak Mbaye maa ngi nuyu gars yëpp ñooñu ñëpp ñu may jàppale ñëpp waaw merci beaucoup gërëm waa Thiaré gépp ñu xam ne kontaan na ci ñoom très naa fexe yi daw du làquti Xaarim Ndiaye kenn la ci caare dëgg la non damay ragal ma ko bokkal ak naafeq yi mag yi naafeq yi ne ci caare yi ay mbir yu mag yi ne da làq ci ay kër Balla Gaye ay naafeq na loolu am na fii si caare waaye dama la bokkal dëgg ma la man la wax ay ay mbër ay ay mbëru caare yi dëgg ma la sa man ma ragal toog fay jooy man mais ñooñu ñaan la Issa dëgg ma la ñooñu nga xam ne seen bopp su ma nee naafeq yi xam yu mbër yu mag yi dëgg ma la yow làmb yi xool ana mbër ma nga fa ñëwul xool rek dama la bokkal naafeq yi daw di làqatu ñooy junjee dama da nga xam la wax dama la hmm. naa du la wax ci kër te Balla Gaye da nga waajal nga daana ma mokk yaa ngi dégg ngeen nga màggal gi waaw mun sonal waay ñun en tout cas ñun ñu sant yàlla bu baax jërëjëf waaw jërëjëf merci beaucoup seen bés di ko jaajëfal di leen jaajëfali ci andin beneen ak beneen invité fi